dalee nag jàmm ñu ànd xëy yër kaa yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo wolof njaay dafay faral di wax fagaru bala ngay lakkale docteur Bakary Samb mi nga xam mooy directeur bu Tumbuktu institut ñu xëy fekk ko ci yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy fàngaam di wax ci lu jëm ci mbirum terrorisme ak ñàkku kaaraange gi nga xam ne am na ci G5 Sahel moom docteur Bakary Samb daan nay wax tamit Sénégal jamono ji ni mu jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy terroristes yi maanaam terroristes yi ni mu tegee gët jamono ji Sénégal daan fay wax matukaay yi nga xam ne Afrique war nañu ko daal di jël ngir rek saafara mbir mu ni mela yéen kaay gii de la turbine moom tim xëy duñu wax ci mbirum terrorisme ak nag samba bu yooyu cong yi nga xam ne daan nañ koy def ci Sahel bi ci ay réew fii ci dendu Afrique surnal bi nee na bu dee Niger foofe nag lu toll ci deux cent cinquante personnes yoo xamante ni maanaam terroristes yi rey nañu leen su dee nag ci Mali lu toll ci sept cent vingt ñoo xamante ni nag daan nañu fay faatu Burkina Faso six cent trente six morts moom la ñu fa di nemmeeku yéen kaay gii de la turbine mu ñu xamal naa ñu nag révélation yoo xamante ne yu doy waar la yu doy waar a waar yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy terroristes yi daan nañu koy def maanaam tig tënk daala terroristes yi jamono ji sonal nañ Afrique loola te nag jël si ay matukaay ba saafara mbir mi daa dinay jafe yéen kaay gii di laasa ñu fekk fa Seydou Guèye mi nga xam ne mooy yor wàllum communication gi ci palais ba daa dinay waax ci jamono ji parti APR ak pëccaxoo gi nga xam ne moo fa am ak defante ba xuloo ba ak xiiroo ga ak ŋaayoo ga moom Seydou Guèye nag di woo ñooñu nga xamante ne ay naataangoom lañ ñu daal di ànd ak dal ma ngi leen di wax ne leen xam leen ne ay magu jëmmu ngeen a moom Seydou Gueye ci dànkaafu gi nga xam ne collectif ñoo lànk daan nañ koy dànkaafu wax ne danañu dem ba sa pale ba Seydou Gueye nag la mu xamal waa laas mooy képp koo xamante ni jël nga ti nga fii lu yoona maanaam yoon dina daal di del si sa kaw ay daan yoo xamante ni dana méngoo ak njombe giraawaali ga nga xam ne moom nga daal di defa ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa Moustapha jaxate moom nag la mu xamle nee na Macky Sall ci boppam moo war a xam boppam askan bi faluñu ko ngir nag mu nekk fii du def lu neex waa FMI yéen a kaay les échos mu ñu xamal lañu Makhtar Cissé mi nga xamante ni nag moom moo jiite woon Senelec maanaam moom démbam daf koo daal di dal ndax li nga xamante ni waxoon na ko ci lu jëm ci mbirum courant gi du dëgg moom Makhtar Cissé la mu waxoon ak lay am maanaam comme yàlla yal yàlla yi Imam Ndiour moom nag la xam xamle nee na ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi dañoo saax saaxee caxte caxte yàq li nga xam ne mooy alalu réew mi ba pare ñëw naa ñu cotiser leen ngir nag fay ay boru Senelec loolee tegewul fenn te nag askan bi ci boppam loolee waruñu koo daal di nangoo Khoureychi Thiam nag la xam xamle nee na dogal bii nga xamante ni daal daan nañ koy jël ngir yokk courant bi loolee ci boppam yëfu dof la te nag tegewul fenn te mbir moomu sax ci boppam dañu ko war a daal di dakkal Moustapha Diakhaté daal di ñëw ci yéen kaay gi de Les nag dogal boobu nga xam ne jël nañ ko ngir yokk courant bi maanaam dañ ko war a annuler dañ ko war a dakkal dañ ko fee war a ndax du loo xamante ni lu baax la jamono ji askan bi tal nañu lu ne nag ba mu des ñu leen di yokkal li nga xam ne mooy njëgu courant gi yéen kaay gi du L'Observateur mu daal di ñu dikkal ci lu jëm ci gi ak bi nga xamante ni daal nay jam baaraamu tuuma xayma délégation bi nga xam ne moo koy daal di organiser ndax gis nañ sax ay njub la nga ak i njuuj njaaj jëm ci wàllum surfacturation ay fausse certification de service enquête yéen a kaay ñu fekk fa Souleymane Téliko mi jiite magistrat yu Sénégal la mu xam ne nag nee na indépendance bi ñuy wax ci justice bi maanaam aw tur rek la daal di nay wax tamit ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xamante ni moo am ci biir seenu liggéey yéen a kaay giiti réew mi quotidien moom daal di tabb maître Moussa Sarr di avocat bu ñu ràññee homme de l'année 2019 maître Moussa Sarr ak ay jaar-jaaram ak nag dossier yi nga xamante ni daat na koy yor ak njariñ li mu ameel askan bi yéen kaay gii di Vox Populi assemblée nationale ak taxawaay bi nga xamante ni député yi moom lañ fay taxawee ak ñi ñoo ko jiite Thierno Bocoum daan na si yëkkatay kàddu wax ne assemblée nationale gi nga xam ne fa la ñuy ay loi ñoom ñoo dàq jalgati li nga xam ne mooy loi yi yéen kaay gii di ñu fekk fa Birahim Seck bu Forum Civil moom nag dafay sàkku ñu andi ay leeral ci li nga xam ne maanaam mooy nju njaaj gi ñuy tudd gi yéen kaay gii di sunu làmb mu ñu bi nga xamante ni moom la ñuy laam-laamee diggante Modou Lo ak Ama Balde jamono ji mbir yee daal dinay sori loola Luc Nicolaï moo fa jaar tey jii si altine ji nag lépp dina leera stade yéen mu ñu xamal leneen liy leer ci altine ji mooy nag tirage bi nga xam ne danañu ko def ci huitième de finale Ligue des champions yi ak équipe yi nga xamante ni soo moytuwulee danañu daal di laale yéen a kaay gii de Les Échos ñu jeexaloo ko ak moomu dikkal ñu nag ci ak giraawale ma ba kumba gu réy koo xam ne daa dinay am ca école neuf bu Pikine dafa am benn jàngalekat boo xam ne da doon fekki xale bu jigéen kër këram di ko jox ay cours maanaam xale bu jigéen ba treize ans la am au lieu nag mu koy dolli xam-xamam da ko doon tëddee moom jàngalekat bi mbir mi na ca Pikine école neuf la xewee